nag dama fee ñëw pour rek leeral parce que ñun jullit ñi dañuy waaj a dugg sunu suñu nouvelle année ñun ñu koy wax amul xamariya muy le calendrier lunaire mais bu fekkee eh, amul chamsiya le calendrier solaire bi moom ñu bari xam nañ ko donc loolu nag laa bëggoon a ñëw pour expliquer ko pour jox ko mbokk jullit ñi donc pour nga xam le calendrier lunaire da ngay jël 2020 nga moy ci hégire tey masalan boo jëlee 2020 mooy depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à nos jours mooy 2020 léegi nag loolu mooy le calendrier solaire mais boo bëggee xam le calendrier lunaire da ngay jël 2020 nga mooy ci hégire boo jëlee 2020 hégire kañ la 622 la yonent bi salaa salaam génn Màkka dem Médina boo jëlee 2020 nga mooy ci 622 da lay jox 1398 nga jël 1398 nga diviser ko par 0,97 0,97 mooy la différence entre année solaire et année lunaire da lay jox 1441 kon ñun jullit ñi ñu ngi ci 1441 léegi dans deux jours war na ñëw dugg ci sunu 1442 je pense que ni loolu tamit jullit ñu bari war nañ koo xam jullit ñu bari dañuy gis 1441 mais xamuñu ko donc pour ñu vérifier aussi que mën nañoo jël 1442 tey bu ñu jëloon 1442 bientôt dans deux jours dinañ ci dugg ñu jël 1442 plus 622 da lay jox 1398 nga jël da ngay jël 1442 nga multiplier ko par 0,97 boo bëggee vérifier le calendrier solaire boo jëlee 1442 multiplier par 0,97 da lay jox 1398 nga jël 1398 plus 622 da lay jox loolu day wane ni loolu mooy la calendrier solaire. waaw lan moo ko wutalee parce que ñëpp xam na ni jullit ñi ñoom xam nga Isa moo fi jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee dani la baax ba'di amul benn yonent buy ñëw sama ginnaaw léegi nag ci calendrier boobu noonu différence bi entre le calendrier solaire et lunaire boo demee ci borom xam-xam yi jàng ilmul falak mooy l'astronomie mooy 0,97 mooy seen différence léegi calendrier lunaire li muy jariñ mooy. tey mun nañu wax ni màkka aj màkka ci lañ koy natt feetu tabaski ci lañ koy jàpp gàmm yi ba ci màggal de Touba bi Cheikh Ahmad Bamba ci la ko jàpp ba ci tamit aussi màggal bi Seydi Hadji male ak ñoom Baye Niass mag ñu baax ñëpp ci lañ ko jàpp kon loolu faratala pour jullit bi war a xam loolu mais bari na tey boo jëloon micro trottoir di laaj 1441 ñu la koy ñu la koy euh, justifier maanaam lu néew la moo tax tey ñu ñëw fii pour jéem leen ko expliquer pour ngeen xam ko xam nga yonent yàlla Jésus Jésus Christ mooy Isa moom dafa bokk ci dafa bokk ci ulul azm mooy yonent les cinq prophètes les cinq meilleurs xam nga yàlla dafa bind cent vingt quatre mille prophètes xam nga ñoom dañoo bari mais am na lu ñuy wax trois cent treize mooy al mursaloon waaye nag ci trois cent treize yooyu am na vingt cinq yonent yoo xam si ñoo gën a populaire boo demee ci benn téere boo xamee ni si benn ouvrage moo ko bind wala nga dem ci Sindidi bu Cheikh ñoom dañ ko takk ni bi aadamin Seydi Hajj Maalik dani bi aadamin idrisin wa uudin wa yunusin wa luutin wa nuuxin summa xaawin li xullati wa daawuda yanqubin suleymaana yusufin wa ishaqa ismaila ilyaasa junnati wa muusa wa haruna wa ayuba walesa wa zil kifli yahya summa isa wasilati boo compté la jox 25 boo demee ci sindidi tamit Sëñ Tuubaa ni yallaahu bi xalilika ibrahima lana umrana wahab lana rusta wa tawfiqa yallaahu wa dammiran kulla aada in tudurri bina xabla lusul lana yallaahu yallaahu boo fa boo boo ko liiri da nga gis les vingt cinq yonent yi wax léegi vingt cinq yooyu am na cinq ñoom si ce sont les meilleurs boobu Isa ci la bokk Isa mooy mooy Jésus Christ kon Jésus Christ bi mu gënee àdduna l'an 1 jusqu'à nos jours mooy 2020 mais nag jullit ñi xaaruñu ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën a àdduna ñu jàpp seen seen date xam nga yonent mi ngi gën a àdduna 570 le jour un lundi 570 boo demee ci borom xam-xam ku ci mel ne Seydi Hadj Malick leeral na ko mu ni baax na shirina li naysaani jaa alana saadun wa fawzun wa unwun ayra muxtanami yoon bi salaa salaam mi ci maanaam ci calendrier ci calendrier solaire boobu lay expliqué min baax na shirina maanaam 20 min naysaan ci avril le 20 avril 570 bu ñu ko convertir ci amu xamariya ci la yoon bi salaa salaam ci amu shamsiya ci la yoon bi salaa salaam gane àdduna kon loolu li koy may mooy xam-xam parce que xam-xam moo yor réew Baye Niass radiallahu anhu daana wax naan war ngeen a jàng français ndax français mooy làkk Afrique war ngeen a jàng anglais parce que anglais mooy làkk àdduna même anglais yi sax nee neen if you don't speak English you will be unfashionable si vous ne parlez pas l'anglais vous serez démodé te yonent bi ni ana arabiyun wal qur'anu arab wa wa lisaan ahlu janna arab yonent bi salaa sallam nee na je un arabe te te aussi alquran bi ci arab la ko yàlla bind te waa ajana tamit arab la ñuy wax kon ñun dañoo war a xam loolu je pense que ni liston des enseignements yoo xamee ni si képp ku naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wan ko xam